jërëjëf gars yi ba léegi ñu ngi fii nga xam ne moom mooy jàmm gën toog ak kaaw moom it mu nekk mbokk taalibe ci biir gars yi mais dama bëgg a waxtaan ak moom ci beneen facette bëgg waxtaan ak moom ci beneen anam muy ci wàllum prision bi nga xam ne sunu ay frères ñoo fa ne sunu ay morom ñoo fa nekk di fa dund loo xamante ni naka sudul noonu la te moom yàlla def na dund na fa jaar na fa genn na bu yagul kon bëgg nañ ko nuyu bay ko mu nuyoo ak mbokki ami internet bi ñu door ñëw ak mom ci waxtaan bi Ka ma lay nuyu di la ah ma lay fay Fallou Galas li nga wax mom gaan ma lay sant ma lay gëreum ci nga wax li nga wax ni tamit amna na sens trop waaw kaso bi metti na trop billahi temps yi rek la fa jógee yagul ñaari at wër na yàlla te ñaari at yoy non si un an neuf mois si loo xamantene ni dafa ma yëgu jamo tinu bi ni waaw loo xamante ne dafa ma yóbbu ma tinu ma waaw ñëw fekk ma ma toog yor sama xaalis ñu tooj ma yóbbu ma kaso tëj ma ñaari yat waaw yóbbu ma saamet mu jógee saamet ñu yóbbu ma si wax daan mu jógee si bi ñu yóbbu ma ndar te xoolal loolu noonu lépp li ma jaar paree pareegu ma de mu jógee ndar dem naa ba Louga mhm. Louga laa yeggalee sama kaso daanaka Louga foofu noonu presque trois mois laa fa tëdd mhm. booy seet daanaka période bii nii la rek si mois de septembre bii ñu nekk de waaw décembre non décembre 31 décembre bii nii lañ ma bàyyi ko waa la ma gracier waaw mais kaso bi tar na trop métti na gaa yi tamit war nañoo gëstu ñu nekk si kaso yi waaw am na tamit ay paa yoo xamante ne nii ay malaatit am na ñoo xamante ne nii tamit am na ñoo xamante ne ay handicapé lan am na ñoo xamante ne nii mooy loolu mais tamit ñoom gësuñu loolu ñoom loolu seen yoon nekku si waaw da ngay gis néeg boo xamante ne nii benn néeg lu mot ay quatre vingt personnes tëdd. ci benn sambur. parce que Serigne Touba Mbacke billaay wallaay. bopp féetoo nii bopp féetoo nii ñu paketala ba nga yow da ngay xam ne yow nii nii nii nii nii nii da ngay fàtte sax yow gis nga ne ko sax yowmal xiyaam barki Serigne Touba Mbacke wóor na yàlla foo tourné xeex day am coow day am garde ñoom bu ñëwee xamuñu négocier xamuñu kii moo def xamuñu kii deful dañ leen génne yóbbu la posu dóor la tooyal la ndox yóbbu la selir mun na la fa téye sax bu na la maçonné seeli sax 8 jours ci lo xamanteni ne da ngay tok fi ngay démé wanak comme wanak baa ni yow fi ngay tok mbóot dañ lay rombu kañay dañ lay rombu jinax yi dañ lay rombu tégal la bol bol bo xamanteni ne bol bu ndaw la wan kar quoi li ñuy wax wan kar, bon bol bu ndaw la tegal la si benn palaatu kiap tuuti ceeb ak jeun ñu paré tégal la si tamit man la waji waa poto ndox so munee lek lekk bo munul lek ya xam Wow, te amna na ñoo xamante ni man ñaata yoon dar la ay eh, doomu aadama dee sama kanam barki seen. bir kasso bi. lay wallahi wa taalaay. lool ban kasso la. lool kasso ndar. ndar bi Saint-Louis. mais nak amna ay amna ay gardien yu baax a baax baax yu su baax yu fa nekk yu melni lu melni ay eh, ñom chef eh, fay ah ay kan? ñom chef wagan ah ay ñom chef mo lay sun waay chef chef ki nu tuddi koku man ak man ak magam sax ñoy chef jaxade ñoo ñëpp ay champion lañ parce que man dañoo dama ñëw ñu jàppale ma sim nga yërëm ma bu ñëwee ma jox leen sama numéro téléphone yaay sama yaay do ñëw sax visite di ma seet si mais après dañ ko mujj woon ne ko maire comme que Dakar dafa sori ak fii noppalul ñun lépp lu war si moom mun nañ ko lii yow nay ah, dee si ni kanam te nit bu deewee nii duñ la ko ñu dugal si néeg comme kenn ku nekk ak sa chambre lan lay dugal sa chambre kenn ku nekk ñu dugal la léegi yow ñun après ñun rumeur moo ñuy dal employé ñuy mujjee rocceeku di naan ne gaañ chambre temps de am na ku fa gaañu waaw léegi bu ko defee dañ lay génnee bu la lay génnee jéem la yóbbu hôpital te bu la lay yóbbu hôpital say la ñu xaar pare nañ si yow day gis koo xamante ne dafa polariser mënul mënul sax dox gis koo xamante ne dafa tàqali sagom billaay wallaay wa taalaay gis naa fa koo xamante ne na fa huit ans atte wuñ ko. ci biir kaso bi billaay wallaay wa taalaay. mais loolu mandat dépôt lay doon wala. non non du mandat dépôt atte guñ ko loolu korog la korog la ay ay ay kiri mu heure rek xam kaso moom lu nekk fa ñii dañuy rey nit ñii man la suñu waa ji ñii xam nga ñii tamit heure moo leen fay yóbbu ñi ay problème viol yooyu noonu mais nag ñu ngi tuuma nag ñoo ëpp xam ne defuñu dara. defuñu dara ñoo ëpp. ñoo ne nii ba nii dañuy métti lu loolu boo leen fëggoon kang kang kang ana waa diw lu la fi def dañ naa la xaw ma ba nii te da nga gis gis bi ñëw teel a cinq ans wala suñu waaj wala quatre ans te defoo de nga taxaw tribunal mu ne la diw yow defoo bàyyi nañ la. fekk tëdd nga quatre ans wala cinq ans. billaay wallaay wala mu ëpp ko sax. billaay wala mu ëpp ko day tëdd huit ans te loo xamante deful ay problème viol ay kër yi kër famille nii rek xool la nii rek bañ la rek yóbbu mais tey bëgg naa xam lenn tey kaso bu dee dañ la yóbbu Ndar wala ñu la yóbbu cees wala ñu lay yóbbu Tamba convent lay doon. convent doon convent bi day jug ay 3 heures du matin. day fekk nga war a tëdd longu peine wala. non non ça dépend parce que doo tëddee 2 ans da ngay dem convent boo tëddee 6 mois mun na la yóbbu sébi mais léegi sax 3 mois dañuy yóbbu convent. 3 mois. billaay wallaay te kaso bi dafa xat. trois mois dañ lay sandi ba si àll bi. am na tam benn gaan boo xam nga fa lañ koy yóbbu mu ngi jigéen soor barki Serigne Touba Mbacke billaay wallaay wa taalaay tar metti kaso Louga moom waxaale wu ma ko fekk foofu dafa bëri ay pël. jaar nga ci ñett yu différent xuma ñeent. non cinq. cinq laay Louga. Cap. fii nu mu tuddee di Sébi. après Ndar. après Louga. mais cinq yooyu noonu pañ nga ci gis ne moo ci gën a tar. wax dëgg yàlla moom ah, amul bu si amul bu si bu si tane quoi kase yëpp a metti surtout 100 mètres 100 mètres bëri na loo xam ne dañ ko fay kaas su ci bëri 100 mètres dund nga fa lu yàgg. 100 mètres dund naa fa lu yàgg parce am naa fa ay ay 3 mois lu tegal ba mujj gi man dama naan sax ma fii nii ma si àll bi sax moo may gënal. ndax li nga fay dund. gis benn néeg boo xamante ne nii ba laahi day am ay lu mel ni ay Sambour 3 wala chambre dix wala chambre neuf yooyu noonu day metti yooyu noonu day metti te chaque jour foo toog da ngay dëgg fëgg yi gaa dañ lay jàpp génnee la ci bi di amul hésité dañ lay doori dóori boo xëyee moo leen suñu waa seeram yëpp ay tëcc def si waaye gar nga xam nga tamit jàppewu jàpp saga jàppewuñu leen surtout waaye quoi te booy seet kaso étranger yi ñoo ëpp doole barki Serigne Touba. budul Sénégalais budul Sénégalais état mo bo amul dara mom da ngay xaar boo yorul dara moom fa ngay nek di foot ay calisson han ñi lay yoni ngay dem ko ñëw yoy non nga fa nekkee bu fekkee nak mooma ah. jambar nga bu go ciup sa drapeau ci dara da ngay dund sa ngor wa hmm. ah, lo am doyloo ko. mais mais mais bu ngeen di foot nan ngeen di foté waaw parce que pan yang fo si wo yang fo mais la rek. waaye yow a teelu yow doo foot wala nga bàyyi ba guddi man moom guddi laa doon fóot quoi comme maanaam ay minuit wala une heure yooyu xam ne ñëpp buñ tëddee nii nga xam ne néeg bi dal na ma génn ndànk génne sama madaar sama yaar. fooy fóotee ci biir chambre bi. non si douche bi chambre bi ci biir douche bi ci biir chambre bi la nekk. ok biir chambre bi waaye lépp da lay rey. xet ak lay rey xet wa taalaay xet ak lépp léeg-léeg man toog naa ni Louga di fóot toog jékki-jékki gis lii nu mu tuddati jiit gis jiit bu mag barki alxuraanu karim fi ma doon fóotee noonu duus yi nga ne mooy pax yooyu noonu léeg-léeg duus bi day déboote léeg-léeg sax nga toog ay kaña jaar sa kaw waaw te ñun kaso Louga bu ñu nekkoon néeg bu ñu nekkoon néeg bi baaxul comme genre dër bii nii la rek day jékki-jékki bu tawee nii day senn day senn quoi. dafa am dafa yàgg loolu noonu jamonoy colonial la kaso yi ngay gis ni yëpp jamonoy colonial la amul kaso bu xanaa sibi bi moo si nekk kaso bu bees ak yeneen kaso yi ñu waa ñu waage defaraat te ñoom yàlla nañ si jiitu ñoom ñoom di ko defar ak ñu koy defar loolu ñëpp mais jommul kenn nag tamit quoi kaso moom jomul kenn mun na la defar mun na la tamit bonal. Hmm. ah mun na la tey dañuy gis ñoo xam ne dañ fay dugg. mais pare bu ñu génnee dañ ñaan bu démb doon tey duñ def lu leen fay dugal. waaw parce que ñoo ñoo ñooñu ngay gis noonu ñu ne bu démb doon tey ñu def lu ñu koy dugal ñooñu ñoo def. ok kon dañoo toog rëccu. ku deful da ngay toog benn place dara du lay énervé si dara. Mm-hmm. ah man ma fa demee man da defuma mais dama doon toog mujj gi damay siisu su ma toogee xalaat ay ñaari at ba may toog sax ñu dañ ma ci mois de juin lañ ma jàppee woon. dama doon toog juin naan di calculer quoi ay septembre nii naan janvier février yàlla na ma garage bàyyeeg yooyu. noonu yàgg ci yow. te day billaay wallaay wa taala jour bu nekk mu ngi mel ni si yow at. imaginer ci biir ngay nekk asamaan ngay gis ak suuf. kese ngeen am cours des fois. waaw am nañ cours mais cours yi du yàgg parce que seet. cours bu ñu appele sept heures fajar teel la ñuy yeete appel bu ñu appele sept heures ñu dugaat neuf heures ñu ubbil ñu. ñu nekk ba ba ba midi ñu dugalaat ñu te tàngoor bi bu da day gën a metti day gën a tar billaay wallaay wa taalaay amoon waaye lu ko amoon nañ amoon naa benn place boo xamante ne nga ko doon wooyee pàkk naajoo boobu ku dul jàmbaar doo toog si ginnaaw ginnaaw ginnaaw. lu waral ñu wooyee pàkk naajoo. waaw mooy tàngoor bi tàng jër heure bii nii day tàng ñii man la sumu waa ji koo mu jàppanteeg yow boo nekkul jàmbaar dëgg da ngay saalib. gaa yi dañuy xeex ci biir Samba. waaw lépp kay xeex ak lépp la ñuy def léeg-léeg nag nga dal si ay gar yoo xam ne ay borom yërmande lañ. dañuy xam nit ñi ay nit lañ ñu ñun lekk mm. ay doomu aadama lañ ñu ñun lekk mm. léeg-léeg ñu jàppale la génne la employé nga dem liggéeyi wala nga dem jardin wala nga dem corbe weer bu deewee ñu fay la mm. kom booy ñibbi bu fekkee Dakar nga ñibbi nii booy ñibbi temps wu ne léegi mun a dagalal benn wekkit boo xamante ne da si siy paas ñibbi. fay bi. day day doon liñ lay tiré lo xamné dang koy jël ci sa ay dundu parce que dañuy gis ño xamné dinañ soxla lo xamné dañ koy dundé fofu ci bir kasso bi loy jël ci boutique bi lay doon wala luñ lay dajalé la weer bu déñu fa. wa ba tay bu la né tam nga jël ci boutique bi après weer bu deewee dañ ko ci tiré mo na la ko ci tim féké dañ lay fay weer ñett junni wala weer 20000 ñett ñetti yoy wala 20000 yoy bo ci jëlé jëlee nga ñett junni ngay dese wa dañ ko ci tiré wa mais ñi xam duñ leen indil añ ñom li fuñu ñu ah si si jangaa bi jangaa bi te jangaa bi neexul léeg nga lekk ceeb bu am xeer ay lekk ceeb ñaata nit lañ fa opéré ay nit yi nit nañ leen di génnee seen seen seen lii seen biir yi ñu fay génnee ay ay xeer. mais jangaa ban lekk la nu muy mel. a ah, jangaa daal lekk sama fuu la daal. ñànk tàng lay wala ceeb bu ñu toog wala lan la. ah day nekk ceebu jën sax day nekk ceebu jën mais comme maanaam togg yaa xam te lay doon. togg xam nga togg mbooloo moom munoo ko munoo ko togg moom mool après ñii dañuy dëbbu seen kaani yi ñii defar seen kirmosine ñii defar seen marinade yooyu noonu mun a lekk xat koor yi quoi ñoo xam am guub yi waaw ñoo xam ne xooluñu booli jàmbur quoi ñoom lu leen andi ñoom lañu xool seen mandaa dépôt quoi waa am na ñoo xam ne tamit booli jàmbur yi la ñuy langaamu ngay lekk booli jàmbur borom bool bi ne la dama raxas ko boo nekkee foofu noonu mun a la subaa doo dugal sa loxo sam bool loolu loo ci mën. mais est-ce loolu mooy dem ba mujj gi am ñu nekk ci kaso bi commencé nekk góor jigéen ñu leen wooyee borom ñaari tur waaw non ñaari tur yi moom ñu si ëpp moom dañ ko fay àndaale. ok du ci kaso bi lañ koy. ñu si bëri dañ ko fay àndaale ñu si bëri. am na ñoo xamante ne kees boobu lañ am. ni yow ñuy man la suñu waa ji def na ko su noonu. mais en tant que góor yàlla ñu tëj la benn diir boo xam ne mën nga fa tëdd korok. nga xam na yow doo gis jigéen est-ce que tamit loolu tamit nekkul moo leen di influence. ah tamit waaw mais tamit loolu dafa dafa bokk si lu bon lekk mais tamit nit nga tenir sa bopp kaso bu ñu la tëjoon dix ans sax nga tenir sa bopp tenir ko rek leer boobu xanaa mooy yow boo nekkee kaso yow liir bu yaag liiru ndaw yi soog a juddi yéen a yem man ma fay nekk chaque jour damay julli dama doon julli ba ma yaakaar ne xoolal mooy loolu noonu. yàlla na ma yàlla jégal mais waaye ma toogee maa ngi sant yàlla de dëgg yàlla waaw. mais bi ngay toog foofu noonu ak ak temps bi ngay am moo tax ngay julli. waaye trois heures du matin ak naa ko dama doon julli ba gaañ naa ma gaañ yoon bi. te <laughs> boo ba naan bàyyi waaw boo génnoon fii léegi léegi fàtte nga lépp ma leen gaañ demeewul noonu de. seen xel dem ci borom bi rek <laughs> billaa wala wa taala te katu moo nekk lu doy waar gis koo xamante ni xamul luy julli. gis ko xamanteni nek na fi jàngul xamul dara bu demé fofu non wallahi alazim lépp lay xam lépp xasida alquran lépp da koy xam amna parce que amna na ay ilimaan amna na imaam lépp. mais ilimaan yi fofu is li lay dal mo len di dal. comme manam fofu manam di julli rek di julli rek julli. imam yi waaw. am na imaam yoo xamante ne ni ñoom julli rek la def chaque jour dañuy julli chaque minute rek lu nekk dañuy julli. léegi da ngay julli nit sax danga ngay julli sax nit ne la damal taxawee ne leen yéen doo dem def li ngeen di def ba pare mooy loolu noonu léeg-léeg nga ñëw ne nit nañ julli mu ne gaan gaañ jàppee wuñ si jumaa ba mooy julli waaw. nga ne nii da ngay ñëw ne di waxtu julli nga tapé ñu ne la gaañ ñun jàppee si jumaa de si <laughs> leneen lañ ñu jàppee mu julli andiwu ma fi waaw mais ñoo xamante ne nag moom dañuy julli mais julli tamit lu baax la nga ñaan yàlla moom moom. moo doon julli ba fajar barki Serigne Touba. a génne kon ne woo tamit di naafi di julli rek. Ah, moom ma génne. instant wala nga bëggoon rek di julli di ñaan pour génn. waaw. waaw am rek kasa mooy demee noonu boo jommee tamit <laughs> boo jommee tamit il faut nga tudd borom bi de ah. ah boo jommee il faut nga tudd borom bi. macha allah billaay walaay. mais kaso moom jommul kenn moom wax dëgg yàlla jommul kenn kenn kenn kenn kenn nit yaa ngi dem xamoo mooy loolu noonu. mu nga toog léegi léegi ñu colomotive la dara kaso bi ñaata nit lañ fa colomotive affaire problème viol yoo xamante ne nii deful yëgul tunul ngir lan alal bu ñu sekk dañoo am ay kër famille la dañ lay bëgg a teg dil moo la suñu waayu suuxlu la te bu ñu ñëwee tribunal ñëw bu ñëwee xamuñu yaa def xamuñu def wala da ngay ñëw rek ñu ne la demal balaa nga comprendre na nga toog ay quatre ans cinq ans ba nga xonet waaw nga soog a taxaw ñu xool say dossier ñu ah, kii deful dara baale leen mu dem loolu du tardement. loolu tardement la. ñu nekk ci réew moo xam ne en ce moment crime yi bari na chaque jour nga dégg rey nañ diw rey nañ diw dañ lay fekk sa ba sa biir appartement rey la réew mi toll foofu en tant que jeune noo ko gisee. ah loolu tamit wax dëgg yàlla loolu moom metti na moom loolu moom loolu képp kuy jullit doomu aadama waroo ko mun a def ñu lay reyloo reyal ma fàllu ma fay la hmm. yow loolu noonu loolu tamit fàllu loolu naa sul loolu léegi yow boo demee si yàlla loo koy wax ah yow loo koy wax nga dem rey doomu jàmbur koo xamante ne nii yaayam moom lay yaakaar yaayam moom lay yaakaar avenir am lépp yaa ngi jur ko ci fu ko war a juree moom la suñu nampal ko fum ko war a nàmpalee mu jur bokk si xeet bu baax ah ba ràññee ñukoy koy defaral lu ne mu dem ba mag wara a dimbali yaayam ak papaam nga ne noonu du am si ay lan règlement de compte yu ñak fulla si yoo xamante ne ay lan yu ay yow man la suñu yow waro am li ki waru mëna am li te tan yooyu li muy am da bari wa dafa bari parce que lepp lepp weccit la rek da ngay gis benn nit bu ñëw na la gan réel ma ki ma fay la nga yëkëti la nga dem ray doomu jambour après nga yaaka nga ngay rëcc do rëcc. lay jàpp te boo demee si kaso bi doo am jàmm wallahi azim boo demee si kaso bi doo am jàmm muku muku muku muku muku muku muku jàmm doo ko am day tax kii ak kii criminel eh puusal fii ñaata nit lañ doon toog fii ci nekk si kaso eh yow reykatu nit nga puusal na le am jàmm muku yàlla boo nekk nit boo xam ne da nga rey ku siiw ay lu mel ni ñoom Aziz Dabala yàlla yeneen ak yeneen ak yooyu noonu loolu naay sul. ba nga feeboo moom moo ko déggee tamit affaire tamit métti lu ko de métti métti ko lool barki alxuraanu karim métti lu ko. billaay wallaay parce que booy boobu noonu tamit xaw ma ko nag musuma ko gis quoi mais avenir la quoi ma ne ma doon toog si jeel bi di seetaan théâtre am bi ko xaw ma te théâtre boobu laa ko doon con noonu laa ko doon surveiller ay midi. billaay wallaay wa taalaay am ñu ne ma kooku noonu mooy Aziz Dabala saa ma toogee sama mind yëpp si jeel bi la ak théâtre yi moo doon seetaan quoi. billaay ci moom quoi dama xel yëpp de. image yi mooy ñëwaat image yi mooy ñëwaat ci man ba Serigne Touba Mbacke. te pare néeg bi sax ñëpp dañ ko doon seetaan ñëpp mooy théâtre bu ñaan théâtre bi Bikol mais tamit Fallou fii lu waaye def sa bopp de affaire yi moom na nga mun a assumer rek keroog yomal xiyaam moom hmm? waaw loolu liggéey rek loolu nga fay fayeeku yow bàmmeel rek dafa tar bàmmeel kese bàmmeel rek dafa metti bàmmeel bàmmeel kese ñu suul la wan la ginnaaw mulki nakir ñëw goo xamante ne ni mooy xaw ma la xamoo ma jugal eh, loolu lool boo fa liggéeyul loolu wax zéro da am la ngay wax malaaka yi la ngay wax ay ay mbugalu bàmmeel ah ay mbugalu bàmmeel la nga si am te fii boo deewee doo ko bokk doo bokk kenn pax yow kese sa pax lool lan moo ko gën a metti lool boo xalaatee loolu noonu yow sa xel waru mën a dem si yàlla waaw ah, sa xel war na mun a dellu si yàlla barki Serigne Touba Mbacke fii daal niki daal moom la mooy la mooy niki affaire yi moom bul di tooñ yenn business yi bul di nangu di dugg affaire loolu rek moo lay dugal ñàkk maandu boo maanduwul moom loo gis rek comme noonu waaw. xale yi dem ci géej gi gis nañ jamono yi paase am na ñu yegg mais jamono yi paase am na ñoo xam ne loru nañ ci biir géej lan nga leen di wax. ah bi moom mu noonu rek géej gi moom ah, géej gi tamit chance la rek deug yàlla mom mom du la fende su ma gisoon gaal damay dem. boo gisoon gal damay barki Serigne Bamba damay dem waaye da ma dem damay dem bay barki Salatul fada damay dem su gizon gal mon building damay dem. ok ndax lan nga wara dem ci gal gal sen bi dafa metti gal sen mo metti. mais ñu ne amul bankas amul banka deug la amul bankas mais tamit mo la suma waji tamit yàlla mo yor ruuy de. mais est ñi egg ñoy lor ñi nga xamne ño fi ne. ah ñu yàgg tamit ah way seet tamit ñuy yàgg tamit loru loru ñu leen de. mais boo gisoon gaal gu pare nii nii nii nga dem. barki Serigne Touba Mbacke damay dem. lu garaaw laa lay wax. moo gisoon wóor na yàlla damay dem Fallou Mbacke. te xam naa ne man su ma demoon gëm naa damay yegg man. waaw mais ñi dem ñëpp dañuy gëm dañuy yegg. waaw même des sax. waaw waaw ba tey lool am na mais gaal moom moo gisee moom damay dem moom. wax dëgg yàlla. ñuy dem des ci géej dañoo gëmoon ne dañuy yegg. dañuy yegg waaw mais tamit borom bi tamit moo def lu muy def rek waaw xam nga moom niki moom yaa ngi dem instant ñu ngi door émission nii mu nga toog suba Baye Sall woo la ne la booy boobu kaw mooy loolu. yàlla waaw example exemple waa yàlla bu mu am affaire yi tamit loola rek mais gaali tamit benn côté bi tamit xam nga mooy loolu baaxul mais tamit dëgg président yi ñoo war a jàppal ñoo war a jàppale jeunes yi waaw. ñoo war a jàppale jeunes yi parce que fii ne lay leer ne yow président bu fi toog lu nekk gaa nañ la siy jàppale mais boo taxawee ñëpp ngay fàtte loolu tamit dafa métti quoi dafa métti yow da ngay gis élection deux mille vingt et un deux mille vingt deux bi xoolal lu nit lu si si doomu aadama dee ay xale. yow loolu méttiwul mais loolu noonu tamit ñaan ñi ñoo si war a mën a jàpp comme li ñuy wax Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko. waaw dañ jàppale jeunes yi jàppale jeunes waaw ah, comme que mu mbokk bi gëmuñu ko Macky Sall xeex nañ ko ba mu seegay léegi nañ jàppale léegi ñoom ñuy toog nañ jàppale jeunes yi nañ jàppale affaire yi moom loolu rek laa mun a am loo xamante ne nii loolu laa mun a wax. gars dañ doon wax ne buñ toogee gaal gi dina wàññi ko mais dañoo toog géej gi xale yi gën di ah, day waaw day gën a yokk parce que lan moo tax ba léegi ñoom wax teguñu lu leer waxuñu lu leer si dara ba léegi waxuñu lu leer si dara est ce que boobu ba léegi def nañ discours ñaata yoon lañ def discours buñ toogee ba léegi ñaata yoon lañ def discours. def nañ discours ay yoon yoon. ay yoon yoon mais tamit discours yooyu noonu yëpp ñuy def noonu tamit dañoo war a jàppale ñun ñoo xamante ne nii ñi ngi jaar ci mbëkk mi. waaw. yow town bii nii bëri na usine ak lépp mën la suñu waaj yow usines yi ngay gis nii yenn sociétés yi tubaab yee ko moom te tubaab waruñu ko moom. suñu alal. te ñaata étranger ngay gis ñoom rek ñooy liggéey suñu kaw. barki Serigne Bamba Mbacke. Mm. loo bañ kele ñëw mën la suñu waaj ñëw jël ko loolu tamit dafa metti waaw te suñu CFA bii nii ñu jëm ko dindi def ko CFA senegal lan moo la si déranger. lu ma si déranger comme maanaam ñun national bi ñu ñu ñu xojee si put moom ñu si loo xamante ne nii moom la suñu waaj it dañ ñoo yàgg nax kon boog ñoom dañ ñoo yàgg nax. mais seen régime bi ci loolu la jëm. ah mais tamit régime bi war nañ si mu ah war nañ si mun a dem de. sa ñu may temps bi. ah ba tey buñ leen maye temps sax waxtaan ak ñoom defar yenn business yi xool projet yeeg yooyu noonu. bari bu ko defee tamit ñu gaan mooy lool noonu. ñu dem ñiy dem ci gaal yi ba léegi yow da nga leen di ñuy dem. non ñuy dem ci gaal yi moom ma sañoon moom jamono ji moom bu ñuy dem moom parce que instant bii nii nii maara bi day metti te instant nii nii ñu ngi ci lan octobre novembre décembre géej gi day yëngu waaw man ci jël bi fu ma nekkoon ay ay man la suñu waa ji ay ñuy ñuy yóbbuwaate rek laa nekkaloon barki Serigne Bamba Mbacké lañ lay teg ci code ba nga yegg mais dama doon toog ak ñoom ñu naan ma kaw gis nga période bi ni ngay gis ni ni wèr yi worul kep ku ci dem do am jamm te mo ngon toog mooy wax ma ko ban comme manam ban wèr mo ci gëna a mool mu ne mom juillet juin wala juillet wala août fo mom day fekk mara bi day dal mais yenen yenen mois yi ci tegu mom du bax quoi te nga xam na ñoom dem dañu xam mara bi yàgg yóbbu nit waaw tamit am ñoo xam ne ñoo xamante tamit waaw yalla moy def lu yalla moy def lu bëgg quoi comme maanaam ñuy dem si mbokk mi nii borom bi deful ñi fii si koñ bi ñaata nit ñoo xamante ne nii ñu ngi gisuñu seen koor si dara barki alxuraan. am na ñu ci dem ñoom ñu. laay ay suñuy nit ñoo xamante ne nii ba nii gisuñu leen wóor na Serigne Touba am na ko xam ne sama ginnaaw boo xamee problème bi si lañ ma waxee gaañu na. boobu ba léegi business boobu damay déranger barki alxuraan. gis loolu ba pare bëgg a dem. Ah, tamit mais léeg-léeg da ngay jékki-jékki siisu xonet da nga fay teg jeexal doo si bañ sax dee. waaw mais man moom dama jàpp ni moom dee moom si loxo yàlla la ko waaw man loolu laa jàpp. macha allah waaw. dama jàpp ni dee si loxo yàlla la man fi mu su ma doon dem si gaal yi su ma tooge déggoo ma la wax man jàng naa alxuraan bu baax a baax a baax a baax. toogee looy def. toogee damay jàng tari samay ayatul kursi samay yaasin ak samay lépp. jàpp nga ne loolu da a kaa yegg ma yegg. ba ca kaay yegg. mais est ce amul ñu dem ñoo xam ne mokkal nañ aaru course mu nekk nii. waaw mais ñooñu ñoon te dañ ko est ko bu jàng bu normal waaw wala wala ñu wala ñu wala ñu boole si loo xamante bokkul jënd ay tërli jii nag di naan yooyu noonu. waaw loolu tamit bokku si. mais ay bu jaar yoon day tax nga yegg. bu bu ko yàlla nangulee rek da ngay yegg kay. bu ko yàlla nangoo moom da ngay yegg moom wax dëgg yàlla moom. waaw parce que borom moom borom moom borom nee na nga topp ko waaw bo sabab loo mu may la waaw sabab loo moom dalay mooy nice. denc sa ay ayatu kursi di xaal gaal gu pare. billaay ay kayaar ak lompul ak fépp fu ma gis damay dem man daal ay géej waaye laa dul ay caare géej yi moom ñi lay réer ñi lay réeral si géej gi waaw ay kara ay kayaar ak waaji ay fii nu mu tuddati ay Mauritanie ak yooyu noonu damay seere waaw. may dem bi la am na benn boo ma nekkaloon si jàll dafa génn rek ñibbi dafa génn rek dem billaay wallaay wa taalaay instant bi ay SDM bi dof lay dóor. léegi SDM yooyu nag mooy rey gars yi. ah yow SDM war nañoo mun a nag ñi dem ñi foofu di dóor si ni SDM ñu nit. macha allah bëgg ah, <laughs> na yàlla yow mooy loolu Mame Fallou yow amal jaamu rek. yow def nii nice a ngi nii de ku ñëw ñu dalal gaa yi leen di dëkkal yooyu noonu ñii ay sàcc lañ ay gàncax lañ amul xoolal ñii ñëpp xoolal mafia bi ñëpp dañuy toog ba fajar mbër mi léeg-léeg day yeewu fajar sax gis mafia bi toog day bugg a jooy barki alxuraanu karim lu ne dañ ko siy dégg fii léegi léegi la benn maire romb fii nii amul lu mu waxul église bii ni prêtre bi rek man la suñu waay sa ju si ñaanal ñu lañ dëkkee barki alxuraanu karim billahi wallahi wa taala fii ñu ñëpp on est ensemble ñun ñëpp a far fii nii ñun ku ñëw dañ lay teeru teral te reer yi lépp day tegu añ yi day tegu ndékk bi day tegu te lépp si loxo yi yalmin bi la lépp si loxo yi yalmin tey rek man la suñu waagi rek xoolal domadaa domadaa yàpp mbana kay laa fi gis mbana waay mooy li wul dara ñun ñu ngeen lépp xam nga la bañ reyante ñun loolu mu bugguñu ko hmm. waaw mais jàmm moom mooy loolu noonu yi nga booy koo gis ku la mag da nga koy jox cër. waaw sa moroomu nga jox ko cër ñun la ñuy dundee. ñu nga Labsori moom jàmbaar la Zal mii ngay gis ni jàppal ma ko moom champion la jàmbaar ngi nii billaay walaay wa taalaay ku la. wóor na sëñ Bamba Mbacke te avant ngeen di ñëw nii lañ toogee wax na ma ñoom galas bàyyi ma dañuy ñëw man leen naaj bu ñëwee mo lool noonu mais moom galas dundal rek waaw yàgg gaan yàlla def leen am jàmm ak li ngeen yóotu si business bii nii yàlla defaral leen ko ma ne waaye ngeen toog ay entreprise di diriger sax Youssou Ndour. jaajëf noonu la demee ñoom man ak ñoom ñoo ànd ci lépp noonu la demee gis ngeen li mu expliqué ci li nga xam ne moom mooy prison yi dund bi ñu fiy dund metti na kon gars yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax joo ñu ngi lay bëggee bu baax di la kontaanee jaajëf gars yi